billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu taala ala seydina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman sadid lisaani nawwir janaani safi amaani wazid baraay assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi siyaar ak a nuyu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ko ñaanal it sëriñ Amdi Fall Modou Menda di ko ñaanal kilifa yoonu murit yépp rawatina sunu kilifa gu tedd gi nekk fii ci Daaru Muxti di ko ñaanal it mbokk taalibe ak jullit yépp ñaan sunu boroom defal ñu jàmm ji sax dàkk ba lii ñu sóobu sunu boroom defal ñu ci tawféex akuk ndimbal ba yeggale ko ci jàmm ak salaam di ñaanit sunu boroom yaatal yërmandeem akuk jàmmam fépp ci réew mi di sàkku ci ñëpp ñuy fasaale mbokk yi bu baax a baax a baax mu mel ni waxtaan wi tey ñi ngi ko war a aj ci wàllum médecine te muy naka la ñuy sàmmee sunuy bëñ dem mbir mi dafay dox nag ba fi mu ne nii bi ko dentaire la ñuy wax dan naan kon naka lañuy sàmmee sunu gémmiñ mu ëmbaale bëñ laata loolu nag dañuy rafetlu jotaay bi waaye jotaay yu mel nii dafa am solo lool ci ci sunu dundin ndax wolof dane xob bi ko balaa ngaa lakkale te daw ca ba ngay ami tànk te mel na ni fi na ne nii doomu aadama yi li leen di gaar ci seen wàllum wér-gi-yaram bari na lool te la leen koy yóbbee mooy ñàkk a xam kon bu demee ba waxtaan yu am solo nii ñu di ko taxawee ci barab bu tedd bii ba mën koo yaatal ba nit ñi di ci jariñu zahiran wa baatinan loolu day nekk tawféex tey dañ ci ndokkeel ñi nga xamante ne ni ñoo téye liggéey boobu ndax mel na ni xam-xam moom du doy tey ku baax ki daana wax ne ni suuf di dundalee ni ndox di dundalee suuf noonu la xam-xam di dundalee xol kon ñi ngeen leen ci ndokkeel bu baax a baax a baax suñ jugee ci loolu dañuy fas yéene waxtaane wàllum set set ci fan ñu ne set ci gémmiñ tubaab di ko tuddee hygiène bucco-dentaire wala hygiène buccale ku tudd loolu nag faw ñu am loo xamante ne nii moom lañuy laytaalee waxtaan bi te mooy def benn li ñuy tuddee situation actuelle maanaam tolluwaay bi ci wàllum wérug gémmiñ ci réew mi ak ci àdduna bi fu mu ci toll suñ ci noppee it daañu ñëw ci li nga xamante ne nii mooy di gémmiñ nu mu bindoo ak ban wàccuwaay la am ci jëmmi doomu aadama ban wàccuwaay la am ci sunu dundin muy société bi waaye ban wàccuwaay la am ci lislaam suñ ci noppee dina ñëw ci li nga xamante ne nii mooy gémmiñ gi set gi naka lañ koy sàmmee bu jàllee ci lool it li nga xamante ne nii amaana bu gémmiñ gi feebaree moo ñu ko yóbbee daañ ci ñëw rawatina ci weer yu mel nii nga xam ni lu ci mel ni dundin bi day waali soppiku bu baax a baax a baax ci xeet lekk yi ñuy faral di jëfandikoo waaye daañu ñëw ci ginnaaw dañuy waxe setu gémmiñ gémmiñ gi bu nee set na it naka la ko nit ki di mën na ràññee di ko xamee ndax bari na ci ñoo xamante ne nii dañuy jéem a seen seetal seen gémmiñ ba sonn waaye wala ñu jàpp ne set na te des na koo def li nga xamante ni munu ci ñàkk it mooy li nga xamante ni day faral di gaar doomu aadama ci wàllum gémmiñ mën nañ koy tuddee ay tawat yan ci gën a miin ak naka lay yëgloo ci biir gémmiñu doomu aadama bi ba kenn ku nekk ku toog fii wala ku ñuy déglu bu ko dalee dana mën a xam ne lii de lii lay tegtal xaaral ma jug xool yi docteur ba di ko tëjee it ci yenn li ñuy tuddee kaa particulier ñi nga xamante ne nii ay xale lañ wala ay mag lañ maanaam dem nañ ba mënatuñoo toppatoo seen i gémmiñ moo xam dañoo dem ba mage lool wala suñ borom da leen nattoo ñoo am li ñuy tuddee déficit motoor ba amaana am nañ ay jafe-jafe ci seeni loxo ba borosoog yooyu duñ ko mën ñoo nan leen leen war a taxawoo euh, daanelee ko ci njariñel soccu bi nga xamante ni mel na ni moo gën a jàppandi ci ñi ci ci ñi ëpp suñu ñëwee ci poñ bu njëkk bi nga xamante ne nii mooy wàllum bi ko dentaire muy wéru gémmiñ fan la toll ci àdduna bi ndax dafa bokk ci feebar yi nga xamante ne nii dafa bari lool ci àdduna bi ndax biñ koy xayma lim nañ lu toll ci ñetti milliards ak genn wàll muy 3,5 milliards yoo xamante ne nii xeetu jàngoro yooyu da leen ni laal ku ne xam na ni loolu daana ne kon àdduna wërngal këpp boo jëlee xaaj bi dañuy am jafe-jafe yooyu tey boo jëlee ci jafe-jafe yooyu it boo ci jëlee yenn ci feebar yi nga xamante ne nii mën nañ koo tuddee carie muy bëñ bu bënn daanaka boo dee xool population mondiale bi mu nga xamante ne ni mooy àdduna wërngal képp néewaa nga ubbi gémmiñ te doo ko fa fekk kon mën nañ ni buñ ko doon tudd bokk na ci feebar yi nga xamante ne nii su fekkee am na moroom sax maanaam képp kuy dox ci kaw suuf rekk mu ngi lay gaar waaye it mu nekk yoo xamante ne nii la ca gën a doy waar te gën cee yéeme mooy des koo mën a wattandiku mën koo mayandiku waaye it képp ku mu dal mënees na koo faj te yenn saay sàggante am ba bakkanu doomu aadama rot ci mu jëlee ci ay jeexital yoo xamante ne nii li ñuy tuddee sekel jeexital yooyu da koy jàpp ci wàllum dundinam waaye da koy jàpp ci giirug giirug dundam moom nag buñ ko tuddee ci réew mi mel na ni biñ ko xaymaa ñi ngi wax lu tollook soixante-quinze pour cent ci doomu réew mi daf leen i gaar te niñ koy waxee saa ne mooy ne li njàngat yi wane mooy doomu aadama yi lu ñuy gën di dem di gën a am jafe-jafe gémmiñ kon mel na ni prévalence bi moom day yox ko li ci doy waar nag dëgg-dëgg mooy tey la jumtukaay yi gën a jàppandi kon bu demee ba nga xamante ne nii nit ñi jumtukaay yi nu am ngir mën a toppatoo seen gémmiñ tey la gën a bari te mu mel ni feebaru gémmiñ gën a yokku gën a doon problème de santé publique nga xam ne lu jaaxal àdduna wërngal képp la loolu kon dana mën a teg baaraam saytuwaat ko bu baax a baax a baax bu ñëwee ci ñaareelu tomb bi mooy gémmiñ ban wàccuwaay la am ci jëmmi yaram wi nu mu bindoo ak it ban wàccuwaay la ko diine jox waaye it ci jamono ji ñuy dundee nun koy gisee njott naa ni dana am solo lool ndax mooy tax fonkeel gi ko kenn ku nekk di def ba mën cee góorgóorlu ngir toppatoo ko mën a am moom nag dafa nekk loo xamante ne nii ci bopp bi la ne waaye boo gënee leeral danga naan ci kanam gi la ne nekk ci diggante sikkim bi ak bakkan wi waaye it nekk loo xamante ne nii nit ki njariñ yu bari bari bari la ko amel te boo xoolee ni ko suñu boroom bindee da ko bind bind gu kéemaane ci lépp loo xamante ne nii sunu boroom bind na ko ndax boo xoolee deru doomu aadama ni bindoo ci kaw gi boo duggee ci biir gémmiñ gi moom doo fa fekk loolu nga xam ne li tubaab di tuddee muqueuse nga fay fekk ndegam nit dafa dugal loo xamante ne nii saa su ne day yëngu muy làmmiñ te toog jafe ko daanaka mobilité boobu muy def ci biir gémmiñ gi suñu boroom da koo bind bind woo xamante ne nii saa su ne day yittewoo muy tooy nga xamante ne nii loolu it li ñuy tuddee tiflit moo koy def mu am ay bëñ ci biir waaye gémmiñ ay bëñ kese nekku fi làmmiñ kese nekku fi waaye lex mooy biiru lex bi ñu koy tuddee face interne de la joue ci biir la nekk waaye it ciiñ ci la nekk waaye it amaa yeneen ak yeneen ak yoo xamante ne nii mu ngi ci biir te benn buñ ci bàyyi nit ki mën naa am feebaru gémmiñ kon ñu xam ne jéggi na jëmmi bëñ bi ñuy gis kase te njortu naa ni looloo waral wolof naan bëñ weex na waaye dereet a ko lal ndax buñ la waxee ñi nga xamante ne nii ñooy faj wàllum bëñ jàng nañ ba am bag jàngaat lu tolloog juróom benn at soo ko mën a doon docteur ci wàllum bëñ ku ko dégg danaan bëñ kase moom nu mu jaree loolu waaye fekk na la ne ca ginnaaw yëpp moo bari te incha allahu taala buñ ci ñëwee ci waxtaan wi dana gën a leer ci ñu ci ñu baree bari bari wàccuwaay gi nga xamante ne nii am na ko ci jamono ji muy ci dundinu doomu aadama mooy ne gémmiñ ci la doomu aadama di defee ci li gën lu gémmiñ mën a def waaye it mooy wax waaye wax googu it mel na ni tudd yàlla da cay ëpp solo nga xamante ne nii boo ko dee xool ci diine bu la neexee ni la taxoon ñu bind ko mooy tudd yàlla képp moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ni képp ku gëm yàlla gëm bis pénc ci wax aw yiw wala nga noppi loolu it lu mar di fàttali la rawatina sunu jamono yi ñuy dund nii gémmiñ nekk it loo xamante ne nii doomu aadama bi moo koy dimbali ba la muy dëgërloo moo xam muy ndox moo xam la muy lekk foofu lay jaar ba tax nay nit ki saa su amee jafe-jafe gémmiñ rekk ku ne xam na ni la cay topp mooy jafe-jafe ci wàllu yaramam mooy feebar da koy daal yomb mu nekk it barab boo xamante ne nii mën nañ ni doomu aadama bi ci biir moroomu doomu aadamaam mooy gémmiñ mooy li nga xamante ne nii moom lay njëkk a jokkoo muy wax ak ñoom jokkoo googu nag dañ koy tuddee li ñuy tuddee langage verbal mooy li ñuy def nii di wax waaye dafa am lu ko jiitu muy langage gestuel nga xam ni boo ngeen séenantee rek la ngeen di njëkk a def mooy kenn ku nekk ubbi ak xar kanamam daa di muuñ reetaan ubbil kanamam moroomam ba nga xamante ne nii kooku dana ko ñeme waaye dana xam ne kii mi ngi ci jàmm wala mi ngi ci leneen wala leneen ak leneen ñi nga xamante ne nii am nañ jafe-jafe boobu donte gone bi nga xamante ne nii dafay jàng ca daara ja rawatina ca école ba it moo xam bëñ bi dafa jaal moo xam dafa damm moo xam am na lu mu bindoo rek da ngay gis ne kooku lëkkaloo boobu mu war a am ak ña mu nekkal day daal di jafe lool te bu yàggee sax day feeñ ci wàllum jàngam ndax boo muytul moroomi gonom dañ koy tooñ ñeneen di ko kii bu dee magit rawatina jigéen amaana génn dana ko dana ko jafe am na ñoo xam ne bu leen dalee yenn yu ndaw yoo xamante ne nii moo xam bëñ bu ñàkk la moo xam lex tuñ bu neewi la wala ya ca aju daanaka masque la ñuy génneeg yooyu nga xam ne kon bokk na ci li nga xamante ne nii mooy tax doomu aadama bi mën a dund ci biir société bi ci ci ci ci jàmm waaye ko di ko dindu ci teey bakkanam loolu it mënees na cee misaal ci solo si mu am ndax it yenn feebar dana ci gaar nit sax li ñuy tuddee mauvaise haleine mooy gémmiñ goo xamante ne nii dafay xeeñ àgg na ci nit ku nekkoon ci entreprise bu mag nar a bàyyi liggéeyam ndax loolu kon mel na it sëy sax dana ci dana ci jaaree tas kon njort naa ne thème bu am a am solo lanu indi te it wàccuwaayu ci diine njort naa ni buñ ci tuddee li yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ni su ma bañu woon sonal sama xeet bi dinaa farataal ci ñoom soccu kon day dëggal ni li ñu tànn nii lu am am solo la waaye it mu fonkoon ko lool ndax mel na ni bi ñu laajee sunu yaay Aïcha ana lan lay njëkk a def bu duggee ci këram mel na ni bokk na cam lam daan njëkk def mooy soccu waaye it daana ko def ci bis bi lu baree bari bari moo xam ci njàpp la laataa moo julli wax nañ ni laataa moo daan jàng alxuraan mel na ni fonkoon na ko lool ba nit ko noppee gisit bokk na ca yem mujje def la ko waral nag mooy li waxoon ne sunu boroom moom dafa taaru te bëgg lu taaru inna allaha jamilun yuhibbul jamil ba tax na it loolu kenn ku nekk li tax ñu di ko wax mooy mu doonu soññe ci kenn ku nekk mu mën a fonk gémmiñam ndax àgg na ci ku jëfandikoo yenn yi nga xamante ne nii day waral gémmiñ di am xet gu naqari lu mel ne ci wenn wàllum laaj wala euh, sobleeg yooyu sax daan wax nañ aaye nañ leen sunu jullikaay yi ndax bëgguñu ñuy jaxasoog nit ñi di leen lor ci loolu waaye it ku wax malaayika yi xam ne ñoom it dañoo bëgg xet gu neex teyit mu nekk loo xamante ne nii doomu aadama bi ci dundam mënu ko ñàkk suñ jàllee ci poñ boobu lañuy njëkk a ñëw rekk mooy fexe ba ñëw ci wàllum ginnaaw njariñ yi nga xamante ne nii gémmiñ amal nañu ko doon nañ ci tudd lu mel ni ni mu bindoo nga xam ne tuñ yi ci la bokk bëñ yi ci la bokk ak yeneen ak yeneen waaye it mu mel ni am na ci loo xam ne dañ koy fàtte sax muy tiflit bi nga xamante ne nii doomu aadama da koy sécrété saa su ne nga xam ni mën na cee génne ci yaramam lu tolloog liitar ak genn wàll xanaa boo ko waxee nit ñi dana leen jaaxal waaye waxtu koor dana neex a xam ndax bu dee bu dul waxtu koor moom lu ñëw rek dañ koy wanaasu waaye bu dee koor mel na ni am na ñoo xam ne fu ñu toll ñu ngi tifli te la koy waral mooy saa su ne glande salivaire yi nga xamante ne nii ñu ngi ci biir gémmiñ gi te ñuy nga xam ne suñu borom bi mu leen bindee ñuy defar tiflit jooju moo ko tax a jóg mel ne saa su ne day sécrété te it bokk na ci njariñ li mu amal doomu aadama ndax dafa bokk ci cetu gémmiñ la ñuy wax muy bëñ te tiflit liggéey dafa bari ndax bokk na ci li nga xamante ne nii mooy yàq bëñ yi muy acidité te tiflit boobu moom moo koy neutraliser maanaam moo koy lugg ba du mën a yàq yàq bëñ yi waaye li nga xamante ne nii mooy ñam yi nga xam ne day jëm ca mbaq ma ngir ñu reesal ko sax reesal woowu ci gémmiñ gi lay tàmbalee te tiflit boobu moo koy def waaye balaa ngaa mën a sàq mi ak wanaasu faw faw it lii na ci biir gémmiñ gi tooy ba nga mën koo jàllale ba tax na lenn loo ci jël ci kéemaanuk sunu borom subhaanahu wa taala lum ci bind rek day nekk loo xamante ne nii munul munul mënul munul munul ñàkk teyit ñu bàyyi xel ci li ma waxoon sànq muy ne doomu aadama yi lu ñu gën di dem seen wér-gu-yaram di gën a dégradé maanaam ñuy gën di am jafe-jafe ci seen wàllum yaram loolu it mu war a samp aw laaj ndax li ñu ko teg lenn la rek mooy dafa am fu nekkoon te dafa mel ni dañ ñu faa bëgg a jële te tey it njortu naa ne lii ñuy waxtaanee wàccuwaay bi mu am ci diine boroom xam-xamu diine yi yàgg nañ cee soññe te di ko wax waaye it yonent bi alayhi salaatu wasalaam dund na ko te yàgg na cee soññe lépp jëm ci wàllum set su ñëwee nag ci wàllum gémmiñ ci toppatoo gi mu mel ni la nga xamante ne nii moo ñu ciy dimbali mooy faaw ñu tontu laaj yu bari mooy naka lañuy ñuy toppatoowee gémmiñ gi kañ lañ koy toppatoo ñaata yoon ci bis bi waaye it lu tax ñu koy toppatoo ak lan lañ koy toppatoowee maanaam yenn jumtuwaay la ñuy jëfandikoo ngir toppatoo ko toppatoo gémmiñ nag njort naa ni la ca jiitu te gën cee yomb amaana boo ko waxee mu jaaxal ñu bari sax mooy ne gémmiñ saa su ne daa am lu koy gaar moo xam ndox mu jëfandikoo la te ndox moom moom boo amee lorit bariwul waaye lu ndoxe lu mu jëfandikoo nag moom te muy am ay sucre ak yooyu moom bu boobaa lor ga day daal di bari waaye jëmmi ndox mi kase moom amu ko waaye bokk na it sa yi nga xamante ne nii da koy indil ay jafe-jafe mooy lekk yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo te buñ doon wax ci liñ mën a def ngir toppatoo gémmiñ la ca jiitu te yomb lool te jàppandi mooy waxtu wu ñu jëfandikoo ba noppi ñu gàllaxndiku gàllaxndiku nga xamante ne nii gàllaxndiku boobu li muy def ci gémmiñ kenn kenn xamul nu mu toll ndax dafay fekk nit ki jëfandiku ba noppi waaye it dëgg la gémmiñ gi taq na waaye la ca taq amaana dëgëragul jàppagul bu baax nga xam ne noppi ga ngay noppi gàllax ndiku te mag ñi fonkoon ko loolu te tàmm ko day nekk loo xamante ni lépp lu taqoon te tafuwul bu baax rek day waa ji deñ nga xam ni mën nañ ni charge bi ci nekkoon mooy la ca takkoon dana wàññiku bu baax a baax a baax su ñëwee nag ci yi nga xamante ne nii dañ ko war a def mooy kañ lañ war a toppatoo gémmiñ gi ci wàllum setal ko setal gi day ñaari anam mooy setal goo xamante ne nii dafa am lu taq ñi di ko setal waaye am setal goo xamante ne nii jubluwaay ba du génne lu taq waaye soppi xet wala la muy xeeñ li ci ëpp nag mooy ñu fekk mu taq ñu war koo setal kon ñu déggee ci ne gémmiñ moom balaa ñu ne dañuy raxas suñu gémmiñ moo xam dañuy socc moo xam dañuy borosu lay gën a jub mooy fekk gémmiñ gi taq li tax nag nit ñi bëgg nañ lool waaye dañoo xamul ñu di ko wax mooy dañoo miin ci suñu réew yi bu ñu yewoo rek xëcc njàmpeeg saabu moom lañ cey teg mooy pat boros suñ borosoo ba noppi ba sangu suñ noppee xewlu ba doyal daal di jug dem te lan taamu woon dëgg-dëgg te digle ko mooy bi nga ndékkee ba pare wala nga xewlu ba pare ci ngay raxas gémmiñ gi rawatina guddi ba ngay tëdd raxas nga gémmiñ gi kon bi nga xëyee tilim moom defu ko fa kon ñu xam ne balaa ñoo raxas gémmiñ gi moo xam socc moo xam borosu lañ ca digle mooy na fekk ñu jëfandiku ba noppi maanaam kon dañuy lekk ba noppi soog koo def loolu it buñ ko waxee mu war a am luñ ci déggee te lañ ca déggee mooy lan liñ ci war a déggee mooy kon li nga xamante ne nii jumtuwaay la bu ñuy setalee gémmiñ saa su ne dafa war a takkook nit ki moo xam dangay ngay jàngi sa patak sa boros nga def ko sa saak am na ñu koy utal turus waaye bu dee ñun suñu réew yi li ñu gën a miin muy socc moom mel na ni fi mu ne nii ñu bari boo leen laajoon ana seen socc sax ñu làmb seen poos génne ko kon lu ñu toppatoo suñu gémmiñ mel na ni ñàkkuñu ko bu nu xëyee nag tekkiwul ni waree su koo raxas déedéet ndax tudd naa sànq ne ñaar ñoo ñu war a yóbbu ci ñu raxas gémmiñ gi benn mooy dafa taq ngir ñu raxas ko ñaareel ba mooy xet wu naqari woo xamante ne nii bëgg nañ koo soppi te ku ne xam na ne nit ki bu tëddee guddi li ñu doon wax sànq ci wàllum tiflit bi ak njariñ li mu am guddi gi sécrétion bi day wàññiku bu baax a baax a baax nga xam ne gémmiñ gi li mu daan defal ci tiflit dafay gën a néew ba tax na it li daan aar gémmiñ gi ci yu bari bari bari kon mën nañu wàññiku na tey tëju googu muy tëju bu yàggee soppiku xet da cee am donte danga ko raxasoon ba mu set wicci ak pâte dentifrice kon jaadu na nit ki bu xëyee su ko neexee mu soppi alenu gémmiñam mooy soppi xetu génn gémmiñam benn ci gàllaxndiku wala borosu walla soccu waaye raxas ngir setal moom ginnaaw bi jëfandikoo ba pare lañ ko lañ ko digle lan lañ ko war a defee loolu it day mat a ñëw liñ ko war a defee nag pat dentifrice tudd nañ ko ci mu nekk loo xamante ne nii cëram wala biram du neexal xetu gémmiñ kese waaye dafa am ay ferñeent yoo xamante ne nii mu ngi ci biir ferñeent yooyu mën nañ cee tudd filior loolu dafa bokk lii aar doomu aadama bi ci bëñ yi nga xamante ne nii dafay bënn ñu koy woowee carie dentaire waaye am na yeneen ferñeent yoo xamante ne nii ñoo ci nekk yoo xamante ne nii day dëgëral bëñ ba di ko sàmm ba tax na pâte dentifrice boobu lu am am solo la ci doomu aadama bi di ko jëfandikoo bu ci topp nag mooy boros boros bi nag dafa am ay critères ni ko pat bi amee ndax pat bi bu ndee xool teneur en fluor bi maanaam li war a nekk ci biir ci fluor war na nekk junni jëm junneeg juróomi téeméer muy 1500 ppm en fluor kon lañ ciy déggee mooy ne pat yi ñuy jëfandikoo ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax bu dee boros bi nga xamante ne nii dañ koy borosoo moom am na ay charte ndax xam na ni gémmiñ li fa nekk dafa sensible loo ci laal am na noo koy laalee rek mu nàcc wala mu dagg ba tax na li ñu recommandé maanaam li ñu digle ci ñu di ko jëfandikoo ngir setal gémmiñ boobu dafay nekk boros boo xamante ne nii boros bu nooy lay doon wala mu nekk bu nooy ba ëpp sax wala mu nekk bu duggi doomu bi waaye li ñuy bañ dëgg dëgg dëgg daal mooy bu dëgër bi ñu di ko jëfandikoo ndax boros bu dëgër bi day yàq gémmiñ tey yàqu-yàqu ya muy def ci gémmiñ gi incha allahu taala daan ci daan ci daan ci ñëw kon kuy ut boros wala ku amoon boros na nga ko xool te xam ni boros bi la ca gën mooy ca ginnaaw boo ko xoolee dinañ ci bind suupul maanaam bu nooy bi wala extra souple bu nooy nepp bi bu nooy nepp bi nag moom daanaka ñi nga xam dañ leen opéré wala ñu amoon yenn jafe-jafe seeni gémmiñ ba dem kër docteur ñu laal ko ñoo koy jëfandikoo ngir bañ gaañ seen bopp waaye souple bi moom mooy bi ñu dégle boo ko mënul am nag nga jël bi ci diggante bi mooy méjëm bi waaye bu dëgër bi moom nañ koy wattandiku bu baax a baax a baax bi nga xamante ne nii mooy boros bi nekkul boros boo xamante ne nii nit ki da ko yor giirug dundam déedéet digle nañ ni ñetti weer yu ne doomu aadama bi soppi boros boobu mu daan borosoo ñetti weer yu ne waaye it mën na faa bañ a àgg mën na ko romb ndax boros bi bi nga koy jënd dafa am nu meloon nan ngay xamee ne kii lan ko doon doyee mënatu ko moom ni euh, bale mel ci kër la mel ndax bale moom ku ne xam na ni kii yi ca nekk ñoo koy def waaye bu demee ba damm ba raas rek daanaka setal dana ko jafe lool boros bi it poil yi nga xamante ne nii ñoo ko séq saa su demee ba lenn lu ne jaar fee lee jaar fee rek boros boobu aajanaa soppi nga xam ni kon nin ko bindee ni mu jublu dajaloo noonu saa su commencé tasaaroo rek mooy ni seetal dëgg-dëgg moom mën mën a mënatu ko bokk na ci yi nga xamante ne nii moom la ñuy jëfandikoo ngir seetal gémmiñ muy li ñuy tuddee fil dentaire wala brossette interdentaire loolu nag dafa nekk yenn jumtuwaay yi nga xamante ne nii ñoom ginnaaw bi nit ki borosoo ba noppi ngir setal ruq-ruqaat yi day mel na ni fawu fawu du mën a ñàkk ndax ku xam boros xam ne diggante bëñ yi mënu faa dugg kaw bëñ yi nag mën na koo setal ba tax na la cay gën mooy boo amee brochette interdentaire yooyu wala fil interdentaire yi nga xam ne ab buum lay doon rek buum mbuum boo xamante ne nii doomu aadama bi da koy dugal ci diggante bëñ yi bu ko dugalee ci diggante bëñ yi nag am na ay mouvement yu ciy def loolu bu dinañ ci ñëw mooy tax gémmiñ gi mën a set bu dee brochette bi moom xeetu boros yu sew a sew la yu ndaw yoo xamante ne nii moom ci diggante bëñ yi nga koy dugal di ko jëfandikoo waaye ñu bàyyi cure yi jëfandikoo ndax mel na ni miin nañ ko lool ci sunu réew yi tey bokkul ci ñuy digle waaye dafay yàq bëñ ndax koo fekk mu fonk ko rek li ci ëpp dafa am lu ñu tuddee ay poche maanaam diggante bëñ yi lekkee dafay daje loolu mu fa dafa daje nag ruux gi mu koy ruux ak cure-dent bi dana neex lool ci li muy def nga xam ne plaisir sax la cay mujjee am waaye day gën di gas bëñ bi di dem te foofu ñu koy dugal yax moo fa ne yax boobu bu xasee ba daw rek bëñ bi daanaka la koy téye ca biir gémmiñ ga dana dana jafe lool. bokk na ci yi nga xamante ni dañ koy jëfandikoo mooy li ñuy tuddee bain de bouche bain yi nag ay xeetu ndox yoo xamante ni ndoxu galax ndiko la tudd buñ ko dee wax ci wolof nga xam ni daanaka ñi yàgg faju ci wàllum kër docteur dentiste miin nañ ko ndax niwaa na ñu dindil nit bëñ te duñ ko ko bindal waaye ñu xam ne yooy it jëfandiku bi dafa war a nekk loo xamante ne nii dañ koo war a def ak teeyu bakkan maanaam waruñu koo jëfandikoo de manière abusive mooy topp ci di gàllax rekk ndax gémmiñ ak mbàq dañoo xaw a foofu mooy dafa am xeeti doomu jàngoro yoo xamante ni da cee ne te bokkul ci lor doomu aadama déedéet waaye day aar doomu aadama bi léegi gémmiñ gi bu setee ba mu ëpp su boobaa yit feebar yu bari bari bari day daal di daa gaar euh, doomu aadama bi ba tax na loolu ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax ndoxu galax nduku yi kun ko bindal bu jeexee baax na ñi nga xam dañ koy faral di am seeni kërit ndax bari na ci jóge bitim réew di ñëw surtout moodu moodu yi liñ ci indil seen waa kër yi waaye ñu xam ne buñ ko jëfandikoo lu une semaine rek doy na ci daanaka ñu teg ko waaye dëkk ci di ko jëfandikoo bu yàggee mën naa indi ay ay ay loraange ci ci ci ci ci doomu aadama bi bokk na ci yi nga xamante ne nii dañ koy jëfandikoo it ci wàllum toppatoo gémmiñ ni demee ba ama am solo waaye jéego yi euh, yokku mooy li nga xamante ne nii dañ koy tuddee ay singom non sucré nga xam ne ay xeetu singom yoo xamante ne lii la amul sucre nga xam ne yéeg yi ko doomu aadama bi di yëy desitu lekk yi nga xam ne daa nekkoon ci diggante bëñ yeeg yenn yi da koy setalaale ba mu set wicci loolu am na ñuy wax sax gomme a à à à mâcher loolu it ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax ba tax na it xam naa daan ci ñëw ci socc bi sax. yooyu ñuy buñ ci accès daañu ko gën leeral ndax singom yooyu ñuy wax mel na ni socc bu foofu dana ko xaw a wuutu ci ci ci ci yu bari bari ci nit ku nu mu ko mën a nu ko mën a euh, jëfandikoo. ginnaaw loolu ci yi nga xamante ne ni doomu aadama bi mën na koo jëfandikoo ngir sàmm gémmiñam aar ko dañ ciy tudd li ñuy tuddee. cure-dent ci tubaab wala bâtonnet tañ gën koo miin fii ñu koy wax soccu moom it dafa nekk ci jumtukaay yi nga xamante ne nii doomu aadama yi dañ koo gën wan ginnaaw te doyoon na ni ma ko waxee sànq ci jullit bu ne mu fonk ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu ci waxoon ndax solo si mu am ci doomu aadama foofu it dañ ciy potoxlu rekk ngir jullit bi wala ki nga xamante ne ni amaana doomu réew mi la mu xam bu baax a baax a baax li ko sunu boroom jox ndaxit damay faral di wax ni sunu maam ñi dañ daan feebar di wér te jamono yooyu xamuñu woon médecine bii te it xamuñu woon yi ñuy jëfandikoo yëpp ba ci garab ak pharmacie te moo ne daanañ feebar daanañ wér kon ana lan daan jëfandikoo kon tekkiwul ni fagaru ak faj moom ci médecine bii ñu miin rek lañ ko mën a defee loolu it njortu naa ni mat naa bàyyi xel bu baax ndax sunu réew yi li leen socc bi mënal ay la yéwén patak boros des na leen koo mënal ndax man am naa ci malaat ba tàyyi mu ñëw ne ma damay bàyyi borosu ma ne ah déet mu ne ma ndax ndaxte damay borosu ba sonn waaye du tee sama bëñ yi dafay bënn rek may wekke rek te amaana kooku bu doon soccu mën naa am jafe-jafe yooyu du ko ci fekk ndax borosu dafa xaw a metti toppatoo gémmiñ metti te sotti bi mel na ni li ëpp ci réew mi moom lañ gën a miin waaye it moo gën a jàppandi ndax patak boros ay la yowén kuu la muy xaalis lay jar te sotti moom mel na ni yomb na lool tey doomu aadama bu ci jëndee benn bu juróom rek amaana mën naa def ak moom ab diir waaye ngir sotti boobu mu mën a jariñ doomu aadama bi faw ñu bàyyi ci xel ni la ca gën mooy faw mu nekk sotti woo xamante ne nii bu dëgër lool ba di ko gaañ te loolu su ngeen ñu teewloo dégg ngeen léegi ñu wax ko ci boros bi kon la war ca boros bi moom moo war ci socc bi socc bi la ca gën mooy lu mu gën a nooy gën a baax lu mu gën a nooy gën a baax bi ci topp it mooy ne soccu moom dina setal gémmiñ ci xoos gi muy xoos muy jonjoo gi muy jonjoo ak bëñ yi waaye yemul ci loolu rek ndax dafay mel ni it li pâte dentifrice amoon socc da koo amaale rabatina socc bu tooy bi ndax ndox mu nekk ci biir am na ay ferñeent yi ci nekk yoo xamante ne it bokk na ca lay njariñam mooy yii day weexal gémmiñ yii day dëgëral gémmiñ ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon ba tax na it buñ ko génnee ci jumtukaay yi rawatina ñu seetlu ne nit ñi jamono yi daan gëfan jëfandikoo soccu ci leen gën a am wérig gémmiñ que bi ñuy jëfandikoo patak boros taman seetlu naa ko ci malaat yi may faral di seet si daanaka boo defee ay gëstu ñi nga xamante ne nii dañuy faral di soccu la leen i gën a gaar mooy feebaru ciiñ siiñ bu feebar moo leen i gën a gaar waaye ñi nga xamante ne nii pot ak boros lañuy jëfandikoo la ca ëpp jëfandikoo ba des la muy jur mooy ñoom ñooy gën a am ay bëñ ñuy bënn kon mel na ni socc ma nga fam ne woon ba léegi ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax wax nañ ci borosu kañ lañ ko war a def wax nañ ci jumtukaay yi nga xamante ne nii moom lañ war a jëfandikoo ngir setal gémmiñ gi wax nañ ci yi nga xamante ne nii doomu aadama bi boo ko dee jëfandikoo ci xeetu boros ak mën na koo gaañ la ñuy ñëw nag mooy doomu aadama bi ñaata yoon la war a raxas gémmiñam raxas gémmiñ gi wax naa ko sànq la ca jiitu mooy gallaxndiku bari na li muy aar doomu aadama bi waaye it ñu xam ne nit ki ci tënk waxtu wu jëfandikoo ba noppi dafa war a raxas gémmiñam waxtu bu jëfandikoo ba noppi su demee nag ba munta ñàkk benn yoon la ko mën a def ci bis bi dañuy taamu mu def ko bu guddee laataa mooy tëdd te bu xasee ba raxas gémmiñam ba pare mun ko indil lu mu neex neex na muñ ba beneen rek wala su ko santee njaay wala jóg ba mënu koo muñit su jugee jëfandiku la ca waaye mu demaat raxasaat gémmiñ gi bu baax li ko waral mooy tiflit bi nga xamante ne nii suñu borom da koo bind bindee ko nu kéemaane ndax maa ngi wax sànq ci njariñ yi nga xam ne amal na ko doomu aadama waaye tiflit woowu bu guddee yaram bi lim ciy defar day tuuti kon la daan aar gémmiñ gi wàññi na bu baax a baax waaye doomu jàngoro yi nekk ci gémmiñ gi dañuy am waxtu wu yaatu ngir lépp luñ bëgg a yàq ci gémmiñ gi ñu yàq ko alors ko bu dee bëccëg bi lu mu bon bon naan nga fi galaxkun nga fi wax nga fi tiflit bi mi ngi génn mi ngi raxas mu ngi kii yenn saay nga tifli mu ngi set waaye bu dee guddi diir boobu ngay toog lu yàgg gémmiñ gi dara xew fa ñoom ña nga ca lañ nekk mooy yàq bëñ yi ak la ca aju ba tax na kon fexe ba gémmiñ gi set guddi gi mooy ëpp solo lool su fekkee ne benn yoon la te munta munta ñàkk waaye la ca gën daal mooy waxtu bu ñu jëfandikoo ba nopp ñu di ko def ndax bokk na ci li nga xamante ne nii day lor doomu aadama ñàkk géey raxas gi ndax buñ ko raxasul lekk xet gu naqari tàmbalee dugg te xet gu naqari moom bokkul lu ñu taamu ci suñu barab yi ñun ñun ñun ñun julli ñi li nga xamante ne nii war nañ ko cee xam mooy ne bu dee nit ki day borosu ñaata waxtu walla ñaata simili la ko boros boobu war a doon ngir gémmiñ gi ñu mën a jàpp ne set na ndax wax naa fi léegi ne malaat bi ñëw ne day bàyyi borosu ndax day gis ni dafay borosu rek waaye bëñ yi day gën di yàqu rek la koy waral mooy niñ koy defee des na kon am na simili yoo xamante ne ni nit ki ngir gémmiñam set lu mu bon bon bon faawu faawu mu boros beeg pat bi wala socc bi def ko ci gémmiñam te biñ ko xaymaa ñi ngi ko natt ci ñetti simili muy trois minutes nee nañ brossage boo xamante ne nii jaar na yoon faawu faawu brosse bi walla socc bi def ci gémmiñu nit ki lu mu néew néew néew ñetti simili kon ku ko natt ci li ñuy def nii daanaka benn simili sax li ñuy def bari na dañuy dugal rek xoos fee xoos fee daal di teg na la dem kon ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax li ñuy borosoo nag mooy dañuy ñëwaat ci li nga xamante ne nii moo ëmb gémmiñ gi bëñ da cee gën a siiw waaye du moom kese wax naa ko sànq bu dee bëñ it faaw ñu xam ni dafa am juróom benn wet muy cinq euh, cinq faces muy juróomi faces mooy juróomi wet yoo xam ne bëñ da ko am benn boo bàyyi rek bëñ bu bënn mën na faa tukkee feebaru gémmiñ mën na faa tukkee jafe-jafe yu bari mën na faa mën na faa tukkee fi nga xamante ne nii kanam la ak ginnaaw ak ndeyjoor ak càmmooñ ak fi ñuy sàqamee kanam ginnaaw ndeyjoor càmmooñ ak fi nga xamante nii moom la ñuy sàqamee ñu koy tuddee surface occlusale nga xam ne ñaari gémmiñ yi lekk yi foofu lañuy daje ngir nit ki mën koo mën koo yëy muy juróom yooyu yëpp dañoo war a set te ku ne xam ne ni boros bi ak socc yi ñu jëfandikoo kanam ak ginnaaw xaw nañ cee aay kanam nag la gën a aay waaye ginnaaw gi moom jafe-jafe loolu la te ci ginnaaw dañ koo war di raxas waaye it surface occlusale yi mënees na faa jotee waaye jafe-jafe bi dëgg mooy kanam ak ginnaaw maanaam diggante bëñ yi fi mu tappaloo fi mu sësuloo foofu noonu mooy xaw a naqaree naqaree raxas waaye ñu xam ne ci ñu war a toppatoo la war a bokk te adjuvant au brossage dentaire yooyu lu ci mel ni fil de soie bi wala brossette interdentaire bi aay na ci lool waaye sotti bi moom lam ci mën ci diggante yooyu boros mënu ko tamit kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax te it li ko waral dañ koy xaw a comprendre ndax man toog naa di sotti kilifa gu mag ci wàllum bëñ ak ya ca aju romb ma ne ma looy def nii dama ko jaaxal daal ndax ma mel ne it daa jàpp ne xam naa ni damaa doye di bay yor soccu war soccu te waroon patu borosu te la ko waral mooy ci li nga xamante ni daf ñuy faral di dal mooy li ñu tuddee tubaab yu ñuul tubaab yu ñuul loolu waruñoo dal li sëñ bi doon wax naan bañuma xam-xam yi waaye soppi ko jikko laay bañ doomu aadama bi faaw faaw mu xam rawatina jullit bi ne yonent bi sallallahu taala alayhi wa ak suñu borom subhanahu wa taala fépp fu ñu joxoñ foofu la leneen lu waay mën a waxit da ngay wax rek waaye la yàlla wax ak la yonent bi wax moom du soppiku bu dee ñun murit ñu ne ak li ci sëriñ bi dolli dañoo doy sëkk keneen ku wax bu duggee ca biir loolu ñu jàpp su génnee loolu ñu xool leneen te ku ne xam ne ne diine wàccuwaay bi mu jox soccu doomu aadama yi bu ñu demee ba mën koo gëmloo wala ñu doye di ko soccu mooy kooku moom mel na ni des naa xam boppam kon socc bi moom li boros bi mën dañuy waxaat ni socc bi mën na ko te socc bi mën na loo xam ne sax amaana boros bi du fa àggee ay fil de soie interdentaire fil ngay jël interdentaire wala ay adjuvant au au li nga xamante ni war nañ ko cee xam mooy ana nañ lañ koy defee ginnaaw bi ñëwee ci yi ñu koy defee kañ lañ koy def ak ya ca aju mooy ne nit ki buy borosu pat bi dentifrice bi jarul muy def ci boros bi ba mu fees dell déedéet daanaka lu toll ni doomu petit pois rek doy na sëkk nga def ko ci ci ci ci ci ci ci boros bi mu setal gémmiñ gi loolu nag bu ñuy gis ci publicité yi moom dañuy gis ñu tàmbalee ci boros bi rek daal di def nii mu jëm fee nga xam ne pot dentifrice bi soo ko waroon jëfandikoo ci ñaari weer boo moytuwul benn weer mu jeex loolu nag kii publicité moom arrangé na ko usine ba ndax muy jeex ngay jënd rek waaye mel na ni tuuti rek doy na ci loolu ñu xam ko bu baax a baax a baax a baax beneen bi ci topp mooy saa suñuy borosu dañuy mel ne gémmiñ gi dañ koy xar ñaar muy kaw ak suuf waaye wareesu leen a boole dañuy raxas kaw gi suñ noppee raxas suuf gi suñ koy xaaj nag dañuy ubbi gémmiñ gi mu diggu doomu maanaam soo ubbi sa gémmiñ doo ko ubbi ba mu yaatu soo ko ubbee ba mu yaatu ni suñ borom bindee lexu doomu aadama dafa am ay muscle fii muscle yooyu nag bu gémmiñ gi ubbeekoo dafay tendre muscle yi nag buñ tendree doomu aadama bi bu dugalee brosit du ko mën a yëngal ni mu waree ngir setal ndax bu boobaa du am mouvement yi mu bëgg ngir mën a setal gémmiñam waaye su xawee ubbi gémmiñ gi tuuti mel ne lu koy tëj waaye te tëjuwul képp ba ne képp xaw na ko ubbi tuuti su waaw boo xëccee sa lex sax dangay gis ne day taabi ko nga xam ne loo dugal ci biir boo dee soccu wala boo dee borosu la nga war a def ci ay mouvement yëpp ngir setal sa gémmiñ lex bi dana ko mën a mën a mën a mën a topp beneen bi mooy it saa su ne dañuy jëlee ci signe bi di wàcc ci bëñ bi ndax ku ne xam ne ni bëñ bi signe bi moo ko mbuur li ëpp ci moom nga xam ne bu doon doomu aadama dan naan bopp bi doo ngay feeñ waaye la dalee ci joq li ba ci suufal tànk li mën nañ ne mi ngi ci biir signe bi yax bi jàpp ci signe bi ñëw muur yax bi noonu la ko suñu borom subhanahu bindee kon ñu xam ni li ëpp ci gémm ci bëñ bi mi ngi ci biir kon bu ñu koy raxas dañuy tàmbalee ci siiñ bi di wàcc ci bëñ bi boo fekkee ne yaa ngi ci kaw kon da ngay jóge ci kaw di wàcc ci suuf waaye su fekkee ne ba ñuy suuf yi ngay raxas su boobaa ci suuf ngay jóge di yéeg ci kaw kon loolu ñu di ko xam bu baax a baax beneen bi bi ci topp mooy ngir ñu setal gémmiñ gi faaw ñu def ay xeeti mouvement waaye mouvement yooyu li ñu miin mooy ay mouvement horizontal horizontaux la ñuy def maanaam nit ki buy borosu warul borosu di def nii wala muy def nii déedéet mais saa suy borosu ndegam dañoo wax day juge ci signe bi jëm ci bëñ bi kon ku ne xam na ni mouvement yi muy def day vertical ci kaw lay jugee jëm ci suuf kaw lay jugee jëm ci suuf te loolu lan miin suñu socc yi nii ngay def moo tax ma ne nit ñi socc lan gën a miin nañ leen jàngal socc day am solo lool te dafa nekk loo xamante ne nii su ko doomu aadama bi defit mu fexe ba bëñ yi juróomi wet yooyu yëpp mu am ñu raxas ko ba mu set waaye yemul ci loolu dafa am lu ne ca biir gémmiñ gi muy làmmiñ wi làmmiñ wi dañ koy fàtte lool te li ëpp ci xetu gémmiñ bi ñuy wax bu naqari ci làmmiñ ba lay bawoo nga xamante ni nii buñ seetloo boros aadaan yi faral di jaay ci boutique yi ginnaaw gi fi ñuy borosoo ci ginnaaw da daan ñagas nga xam ne tubaab mi ngi koy tuddee grade langue wala brosse langue moom raxas làmmiñ doo nga ko tax a jóg nga xam ne après da ngay dëpp sa boros jël ginnaaw gi raxas sa làmmiñ ba mu set loolu ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ci yi ñu war a raxas mooy li nga xamante ne nii mooy li dox ci diggante siiñ wi ak lex wi ci biir ndax la ëpp ci lekk yi foofu lay làqatu biir géem yi xóot na lool de niñ ko yaakaar ak ni mu demee ak a ak ak kii sax nga xam ni ñun daanti sax dañuy am bëñ buy bënn ci wax ni toppatoo gémmiñ jafe gi mu jafe te mu ko nekk loo xamante ne nii ak farlu dëgg la laaj te bokk na ci ngir xam ne nit farlu na sax fu fu setu gémmiñam toll loolu dana tax ñu xam nit de degré de de de de de farloom fu ak ak ak ak ak ak farloom euh, fa fan la toll ci ci ci ci wàll woowu ndax naqaree gim naqaree euh, toppatoo ginnaaw yooyu. buñ koy jeexalee mooy gàllaxndiku ginnaaw bi nga brosoo ba pare li nekk ci dig diggal bëñ yëpp ak li ne ci biir daa di mën a génn li nga xamante ni wares na ko cee xam mooy doomu aadama bi su fekkee ni borosu na ba noppi gàllaxndiku lim koy tàggale ci ay doomu jàngoro ak lim koy tàggale ci ay taq-taq kenn xamul lu mu toll waaye nit ki ginnaaw xam na ni ñuy borosoo xam na kañ lay borosu xam na lan ak lan la war a borosoo xam na nam koy tànnee xam na bu toogee ab diir kañ la ko war a soppi waaye day jaaru mu xam ndaxam gémmiñ gi ma doon toppatoo boobu ba léegi nee nañ ma ñetti minute la war a doon nee nañ ma nangam nee nañ ma nangam seet na wala setul njort naa ni lool it buñ ko dee seetu di ko bàyyi xel kenn du ñëw naan damay bàyyi borosu ndaxte sama damay boros waaye sama bëñ yëpp a ngi yàqu loolu nag niñ koy xamee yomb na ba tey nit ki saa su toppatoo gémmiñam ba noppi la muy daal di def mooy day jël làmmiñam daat koy jaarale ci bëñ yëpp fépp fu mu ko jaarale mu liis foo na xam ne foofu set na wicc fépp fu mu ko jaarale mu ñagas nga xam ne foofu des na te sunu borom bokk na ci bi mu bindee làmmiñ mooy ne lu mu ñagas ñagas ñagas ak lu mu tuut tuut tuut boo fa jaareele làmmiñ ba mu wan la ko loolu ci xarañteeg sunu borom la ndax pépp suuf lu muy tuuti tuuti fi mu ne nii soo ko duggaloon si diggante ñaari bëñ yi màtt ko yëg ni màtt nga pépp suuf mooy bindal na bëñ loo xamante ne nii mbir lu mu tuut tuut boo ko doxalee ci diggante bëñ yi mu mu détecté ko làmmiñ bi noonu la ko bindee nga xam ne foo ko fa jaaralee rek. bu ñagasee tuuti nga xam ne fii warees na ko laalaat ñaar yooyu nag lu ca gën mooy lan mooy di leen boole ndax patak boros am na avantage bu jafe boo xam ne gis ko ci socc mën naa jafe mooy xetu gémmiñ gi muy yeesalaat mu neex waaye it socc bi am na avantage boo xamante ne nii ëpp leen na ko boros mooy boros bi mën ngaa boros ba tàyyi di jaare la sa làmmiñ muy ñagas waaye saa su fa socc jaaree moom mu liis kon di leen boole bokk na ci li nga xamante ne nii mooy li gën waaye it nit ki ngir di bàyyi xel gémmiñam war na ko bu toogee ab diir mu xëcc seetu daal di xool gémmiñ gi xool gi lim ciy xool mooy lan mooy ne nit ki bu xasee ba xool gémmiñam rek xam na ni mu bindoo su amee lu taq xam na dina ko gis waaye rawatina li nga xam ne mooy ay bëñ yu bënn ndax bëñ yi dina bënn toog ab diir lu yàgg te nit ku du yëg ne bëñam dafa bënn ndax mi ngi mel ne karaw rek mën nay lakk te nit ku du ko yëg saa su agsee ca deru bopp ba nag mu xam ne ah ma ngay lakk bëñ bi li suñu borom teg ci kawam ñu koy tuddee émail mooy li nga xamante ne nii mooy aar lay dundal bëñ ba ba ndox mi sedd bi ngay naan ndox mu tàng mi ngay jëfandikoo ak yu saf suukar yi ngay lekk yëpp mu nekk loo xamante ne nii du mën a gaañ doomu aadama bi saa su demee ba loolu tegg ko ndànk-ndànk muy waral doomu aadama bi di tàmbali di yëg loolu poñ bi ci topp mooy feebar yi nga xamante ne nii dees koy faral di gis ci gémmiñ waaye ak naka la ko nit ki mën a ràññee ba su ko dalee mu teel la jug liñ naan daw ca ba ngay ami tànk bokk na ca mooy jëfandiku lu tàng mbaa mu sedd yëg ne sa bëñ yi dafay maas fu ko nit ki defee rek mooy tàmbali naa am jafe-jafe bëñ ñu koy tuddee hypersensibilité dentaire bi ci topp mooy lan mooy nit ki di lekk bu lekk bi duggee fenn fi rek mu sentir ne foofu ma ngay metti soit poos la walla bëñ bi dafa bënn foofu na ko gaaw indi bokk na ci lan mooy nit ki borosu mbaamu mu soccu yàbbi gis mu génne deret nga xam ne mi ngi tàmbalee am feebaru siiñ lu dul ne boros bi walla socc bi daf koy gaañ moo xam dafa dëgër mooy bu diir bi te loolu nee naa ne dañ koy aaye saa su ñuy tànn boros nañ tànn bu nooy bi saa su ñuy sànn soccu nañ tànn bu nooy bi kon fu nit ki soccoo mbaamu borosu mu nàcc rek na xam ne mi ngi tàmbalee am feebaru bëñ rawatina feebaru siiñ saa su toogee it gis ne bëñ bi mu ngi yëngu boobu moom mooy ne sori na lool sax donte mettiwul ndax mettit li ci doomu aadama yi war a xam li fekk mi ngi metti mooy bu baax bi li fekk mettiwul mooy bu bon bi mettit suñu borom da koo bindil doomu aadama ngir bu dee ci wàllum yaram waxuñ ci baatin nag waaye bu dee ci wàllum yaram boo dee xool loxo bi boo ko tegee ci xal wi mu lakk la lam lay jariñ mooy lan teggil sa loxo kon su amul woon mettit boobu loxo doomu aadama bi cër boobu dana lakk ba jeex te doomu aadama bi du ko yëg sunu boroom nag bëggul cër woowu lakk nga xam ne bu tegee mu lakk rek mu teggi kon mettit signe la ci nit ki xam ne nàngam lii kat baaxul naa jug dem faju ji wala naajug jug su métteetul nag mooy bi garaaw mooy bëñ bu métti ba métteetul romb na bëñ ba ma nga ca yax wa yeneen feebar lay indi te day dem ba nit ki di ci ñàkk bakkanam te bëñ moom bu demee ba nit ki di ci ñàkk bakkanam ay jamono bari woon na li ñuy tuddee cellulite lex yu neewi yooyu am dëtt nit ki mu mujj ñàkk bakkanam waaye jamono jii moom waree su ko euh, gisati te la koy waral mooy lañ ciy dimbali teel a jug ci wàll woowu bu ko dee tënk nag ci côté boobu ci wàllum li nga xamante ne nii dañ koy jàpp ci wàllum gémmiñ bi mooy ne doomu aadama bi ngir mu mën a xam ni gémmiñam wér na walla wérul faaw bàyyi xel lenn li ndax gémmiñ gi mooy seetu yaram wi sa gémmiñ ni mu mel nekk noonu la sa yaram mel gémmiñ gi bu feebaree yaram bi munta wér loolu faaw ñu xam ko te jamono jii moom ñu bari seeni bàmmeel seeni gémmiñ lañ koy gase moo xam ca la ñuy naan moo xam ca lañuy jëfandikoo moo xam ca ñàkk toppatoo gémmiñ bi te moo ne yooyu yëpp diine yeewoon yoon sa salaam yeewoon nañ ci nañuy lekkee nañuy naanee waxoon na ci te bokk na ci làkk gémmiñ mooy grignotage foo tollu lekk nekk sa gémmiñ te loolu du sunna nan war a xaajee gémmiñ gi lii ndox lii ñam lii ngelaw waxoon na ko ak yu bari bari yoo xamante ne nii jullit di ñoo dem ba sàggan topp amaana yu bari bari ba li leen dal di leen di dal waaye ñu bàyyi xel ni kon gémmiñ gi nit ki bu gémmiñam feebaree rek feebaru gémmiñ da koy daal di yomb te buñ ko dee tënk dan naan nit ki ngir ñu mën a wax ni am na wéru gémmiñ xam naa lu jafe la nag ku ko dajale fii dana jafe lool waaye kenn ku ci am benn rek dafa am feebaru gémmiñ bi ci njëkk mooy lan mooy ñàkk yëg aw mettit ci sa kanam gi yëpp moo xam ŋaam yi moo xam biir gémmiñ gi moo xam tuñ wi li ko laal lépp nit ki waru cee yëg benn mettit ngir ñu mën a wax ni am na wéru gémmiñ benn ñaareel ba mooy waru ci am benn dagg-dagg wala gaañu gaañu su ko ca amee rek amee na feebaru gémmiñ waru ci amee benn neewo rawatina yi ñuy tuddee cancer moo xam tumeur bu bénigne la wala bu bu maliñ la waaye it warul am fi signe buy nàcc warul am bëñ buy yëngatu warul am bëñ bu simmiku bëñ bu simmiku mooy bëñ woo xamante ne nii ni ma ko waxee sànq bu doon jëmmi doomu aadama bopp bi dong la ñuy gis la des sa yaram yëpp mi ngi ci biir siñ bi saa suñ demee bay gis racine dentaire bi mooy li nga xam ne moo sampe ci biir siñ bi bëñ boobu dafa simmiku te bokk na ci la koy waral mooy brossage bu agressif di borosu te xamoo na ngay borosoo di def nii rek wala ngay soccu di gaañ siñ bi siñ bi day daw bu yàggee bu dawee dafay bàyyi bëñ bi mooy loolu ngay waral nga gis ñoo xam ne seen bëñ bi dangay ngay mel ne day mel lu gudd lay feeñ ca loolu warul woon feeñ yax da ko waroon a muur sëñ bi teg ci kawam. yooyu it la muy jur mooy nit ki bu naanee lu sedd wala lu tàng day daal di metti day mel ne day day day day crampe te la ko waraloon mooy suñu borom da koo mbuuroon yax muur ko siiñ ndegam loolu daw na nag muy nekk directement en contact ak ñam yeeg seddaay beeg tàngoor bi. bu naanee lu tàng rek day yuuxu bu naanee lu sedd noonu kon ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax bokk na ci yi nga xamante ne nii mën nañoo wax ne nit ki am na wérug gémmiñ mooy warta ñàkk benn bëñ su demee ba ñàkk benn bëñ rek muy aw jaal rek ñu xam ne kooku am na feebaru gémmiñ ci tënk nit ki li fekk am na jafe am na jafe-jafe def yii dafa ame feebaru gémmiñ nit ki saa su amee am amee jafe-jafe wax mbaa mu am jafe-jafe sàq mbaa mu am jafe-jafe reetaan reetaan sax ci la bokk reetaan ndax ku jaal doo reetaan kon ñu bàyyi xel yooyu ne nit ki saa su amee jafe-jafe màtt wala mu sàq mi wala mu wax ak yu jëm ci yooyu nga xam ne mooy fonction gémmiñ gi rek na xam ne dafa amee jafe-jafe gémmiñ te war naa ñëw ñu lijjanti ko euh, jaal bi nag boo ko waxee ñu bari dañuy yaakaar ni aw taar moo ko tax a jóg ci poose bi waaye bëñ wu deñ ñu war koo wuuteleeg beneen te defuñu ko la muy jur mooy yeneen bëñ yu yàqu rek tey miin ngeen ko malaat ñëw na ba tàyyi ne man ba ma dindee bëñ ba léegi damay continuer di dinde rek te la ko waral mooy bëñ yi suñu borom dafa xarañ ñi mu ko ràbbalee moo moo doy waar xam nga bëñ dafa am ci kaw am ci suuf ñu daje bëñ kaw ak suuf bi ñu dajee nit ki bu xasee ba ñàkk bëñu suuf bu yàggee bëñu kaw yi day wàcc day wadd ndax ndegam dañ daan daje ku ne kale sa moroom ñett yi buñ dañee yeneen ñett yi dañuy wàcc su fekkee ci kaw la dañee nii kii day ko bu yuqikoo it fa mu waroon nekk génn na ko bëñ boobu it dañ koy ñàkk nga xam ne bëñ bu ci dañ rek bu xoolee dentiste dina ne bëñ bi dañ ko war a wuutale muy poosé waat ko wala déet loolu ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax li ñuy tëjee nag mooy li nga xamante ne nii bëgg nañ doomu aadama yi fonkaat ko bu baax a baax a baax ndax sunna la te it bokk na ci li nga xamante ne nii dara mënu ko ci setal gémmiñ muy soccu bi ndax bokk naa ci ku jàng xuratul ayni bu sëñ sooy bu mbàkke rek diñ ca fekk njariñ ya te jullit bu ne war caa daw jëm ndax lépp luy bégloo yàlla di merloo seytaane rek jar na sonn na dëgër gi muy dëgëral bëñ dina neexal aw gis dina rafetal karaw dina tax nit ki du gaaw a màggat wax na ne sax dana tax nit ki buy sukuraat sunu borom dana ko dimbali ba baatu seede yi mu mën koo tudd waaye it mu deewaale ak ngëm ba tax na it kon loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu ngi santaat ñëpp di wax ni loolu lañ doon amoon ci di ko wax ak mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yi ci ñu gën a bàyyiwaat xel sunu gémmiñ bu baax a baax a baax te xam ni gémmiñ gi bu feebaree rek yaram wi feebar bari na nit ki tawat bu muy jàmbat hôpital di ko faj mu tëw fekk gémmiñ gaa feebar gémmiñ dana feebar àgg ci nit ki faj buñ ko jox ci yaramam faj moomu du du du du jàll ndax gémmiñ ngaa feebar nga xam ne boo amee lu mel ni feebaru suukar muy jabet faawu gémmiñ gi normal ngir suukar si normal faawu suukar si normal ngir gémmiñ gi normal benn bu ci ne day dundal moroomam nga xam ne diabétologue bi sax saa su ne bu amee malade jabet dafa am dentiste bu mu koy booleel bu koy topp maladie cardiovasculaire yii tension yeeg ya ca aju ngir mu stable normal ak faj ma faaw faaw gémmiñ gi normal kon ñi ngi woowaat ñëpp ci ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax te gën cee góor góorgóorlu te xam ni daal niñ ko waxee sànq gémmiñ mooy seetu yaram wi loo bëgg a xam ci sa yaram rek seet ko ci sa ci sa gémmiñ wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, jërëjëf sëriñ docteur Abdoulaye Sare ci waxtaan wu am solo bi nga xamante ne moom nga ñu baaxe tey te mu jëm ci naka la ñuy sàmmee suñuy bañ yaakaar naa ne képp koo xamante ne teew la nga waxtaan wi jële nga ci njëriñ loo xamante ne incha dana la amal njëriñ sa dund xam naa ne dañuy jox kàddu gi docteur njaay mi nga xamante ne moo ànd ak moom su ko def su ko defee mu def benn taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane euh, bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali mbokk yi ne suba incha allah ci ñetteelu fan bi danañu fas yéene dalal sëriñ Mourou Jaxate mu fas yéene ànd ak ñun ci xayaatu mooy kan mooy sëriñ Mamour Anta Sali bu ñeenteelu fan bi dana dalal sëñ Moussa Ndiaye Bilal ci xawlal adani wal iqaama muy nodd ak liqaam bu dee juróomeelu fan bi tamit danañ dalal sëñ Moxtaar Kan ak sëñ Abdu bu Busa Alxaaji ci aljana iswal maqaabir muy naka la ñuy toppatoo ko fi bàyyi ko ak solay armeel bu dee juróom-benneelu fan bi sëñ Abdourahim lay la ñuy fas yéen daral ci at tayaaraat asiyaasiya al mawjuda mooy doxalinu politique yi am ci àdduna bi bu dee ci juróom-ñaareelu fan bi te mooy bis bi nga xamante ne moo njëkk moo mujj ci ay bis bu njëkk gi ñu fas yéene daral Serigne Bamba Dramé ci taarixu binaa ituraas wa saqaafa al islaamia fi Sénégal marahil wa alam muy euh, ndonal l'islam ci Sénégal ak ni ko mag ñi ni ci mag ñi taxee woon kon loolu mooy programme mu ay bis bu njëkk bi kon xam naa ne pour ñu gën a guddal rek dañuy jox kàddu gi docteur Ndiaye mi nga xamante ne mooy euh, médecin chef district bu Darou Moussi ànd ak euh, Serigne Abdoulaye Sare su ko defee mu indi ay kàddu yi nga xamante ne moom lay toftal ci lii nga xamante ne moom la sëñ Abdoulaye Sarré indi woon aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani sant yàlla bu baax di julli ci yonent euh, sëñ Bass sant ñang ak bépp kilifa diine rek sëñ Abdou Samad ak kilifa bu fi toog yëpp Eh, di sant bu baax sëñ Abdoulaye Sare damay wax sa docteur Abdoulaye Sare ci waxtaan bu am solo bii mu ñu defal tey mu nekk waxtaan bu am solo eh, comme ni ko waxee nag eh, bëñ wala gémmiñ dafa nekk lu am solo maanaam ni ko suñu boroom defee mu nekk suñu kanam ñu jàkkaar ak moom noonu la nekkee aussi bunt boo xam ni saafara la wala aussi jàngoor yëpp tamit foofu lay jaare ci waxtaanam nag ñëw na ci li ñuy wax épidémiologie maanaam feebar bi boo nee feebar la di nga wax tolluwaayam ci àddina bi yëpp donc ñëw na ci jox ci ay lim yu am solo pour wane ni rek feebar bu feebar bu am solo la bu yaatu la ci askan bi. ñëw na tamit ci lu ñuy wax anatomie maanaam bu ñuy gémmin nan la bindoo yenn façon bëñ moo am canine incisive ak moleel bu ci nekk rek lan mooy njariñam. ñëw bu paree la wax ci lan mooy euh, physiologie maanaam gémmin nu mu bindoo suñu borom ci xarañteemam dafa gémmiñ bindaay boo xam ni lépp lu ci manqué rek day am jeexital ci wér-gu-yaramu nit ki wax na glande salivaire booy lekk bu fekkee ni sàqami bi jaarul yoon day am jeexital ci sa reesal bu fekkee ni da am problème mu tiflit day am jeexital tamit ci reesal bi ñëwaat na ci aussi ci wax bu fekkee say bëñ dafa manqué pour nga wax wax bu leer dafay am jafe-jafe màgget daf lay gaaw a dab wax na aussi ci lu am solo maanaam équilibre bi nga xam ne suñu borom def na ko ci gémmiñ ni mu ko defee nag ci euh, nit de manière générale lépp rek équilibre la comme ni mu ko waxee sa bëñ bi nekk ci suuf bu wàccee ndax suñ boroom dafa def li nga xam ne dafa am équilibre bi ci suuf day day bi ci kaw day da koy da koy fekk si donc loolu aussi day indi ay ay ay jafe-jafe euh, beneen bi aussi mooy bu fekkee ni euh, say gémmiñ tamit toppatoo ko ñëw na ci bu baax ci nan lañuy toppatoo gémmiñ bi ci gën a jàppandi moom mooy socc socc nag comme ni mu ko waxee ñun dañoo xaw a complexé te dafa mel ni sax suñu mbokk soxna yi ñoo ko gën a faratal góor ñi te lu am solo la te lu jàppandi la donc loolu aussi jàpp naa ni war nañ ko farataal ñun ñëpp yeneen yi nag moom ma gàllaxndiku loolu tamit lu jàppandi la te gis nañ aussi mag ñi farataal ko lool te ñun ci suñu wàllu exercice rek ci ci daara yi gis nañ ni àndoo euh, kar yi dafa bëri ci ci daara yi donc loolu aussi day baax ñu gën a góorgóorlu ci ci ci yu mel noonu euh, beneen bi aussi mooy wàllu gémmiñ ni mu amay solo dañuy gis ci wàllu gëstu. gis nañ ñi nga xam ni ci wàllu athlétisme ñi nga xam ne ñoo dara daw maanaam ñu am wér-gu-yaram bu mucc ayib mooy ñi nga xam ne manqué wuñu benn bëñ te sax am na ci seen bëñ nu muy mel pour day màndargaal seen seen seen seen seen wér-gu-yaram pour wax rek gémmiñ ak bëñ ni mu ni mu ni mu amee solo euh, am na nag comme ni mu ko waxee tamit ay complications yoo xam ni dañ koy xeeb mais bu fekkee ni suñu gémmiñ toppatoo wuñ ko ni ñu ko war a toppatoo ëllëg ci biir mën nañ am lu ñuy wax endocardite maanaam feebar bi mën nga am infection mu jaare ci gémmiñ gi egg ci xol bi ba jox la feebar boo xam ni maanaam da ngay faju sa giiru dund mën na la jox li ñuy wax rhumatisme aigu articulaire aigu nga am feebaru yax te lépp ci gémmiñ gi la bàyyeekoo te loolu aussi dangay faju sa giiru dund te loolu yépp aussi socc ak gàllaxndiku ak ya ca aju mën na ko mën na ko mën na ko fagaagal euh, dañ koy daal sant daal ci waxtaan bi mu nekk waxtaan bu bu am solo bu tegu ci xam-xam ak ci taalibe Euh, mu nekk waxtaan boo xam ne njariñ njariñ njariñ kese la donc ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di wax ni daal lépp lu fi taataan rek ñu jëfe ko parce que ñun en tant que médecin de santé publique li moom mooy suñu rôle maanaam def li ñuy wax promotion de la santé maanaam fagaru waxtaan ak nit ñi wax leen lan mooy feebar yi comme tey ñu jël di gémmiñ ëllëg aussi beneen aussi mën nañ ko jël mais fexe ba feebar bi daal bañ a fekk egg ci ci ci ci ci askan bi donc loolu lañ ci bëggoon euh, sànni di sant bu baax waa Al ci dalal bi ak ci invitation bi donc sëñ euh, Abdoulaye Sarr vraiment waxtaan bi am na solo ñu lay sant bu baax di la gërëm jërëjëf. jërëjëf euh, jërëjëf docteur Ndiaye ci tënk bi nga xamante ne moom nga indi. tënk ko li nga xamante ne moom la sëriñ bi waxtaane ci jataay bi te muy la am solo nga yokk ci tamit yeneen yoo xamante ne warees na ko bàyyi xel te muy lu am solo tamit teg ci xam naa ne waxtaan wi am solo gum am solo tox na am na ay mbokk yoo xamante ne am nañ ay laaj yuñ fi indi bëggoon ñu baaxee leen ci ay leeral bala ñu yëkkati jataay bi kon xam naa ne dañuy jox kàddu gi oustaz Ahmadou Mbow soo defee mu indi laaj yi nga xamante ne moo aju ci lii nga xamante ne moom la sëñ bi doon waxtaane xam naa ne laaj bi ci njëkk rek moom mooy dafa am koo xamante dafa wax ne dafa dégg ci sa biir wax nga ne bëñ dafa am juróomi faas maanaam ci kanam ci ginnaaw ak ci suuf fi ñooy sàqamee ak ci diggante bëñ yi mooy laaj nag maanaam diggante bëñ yooyu noonu moom nan la nit ki di ko mën a setale kese la waaw diggante bañ yooyu li nu miin di ko raxasee gémmiñ ngir mu setal ko jafe na muy brosse à dents socc bi mel na ni moo ci tane ndax ku ne xam ne ne socc ay fibre la yu sew yoo xamante ne nii mën naa dugg ci diggante bu ne waaye la ca gën mooy dañ koo sàkkal loo xamante ne nii diggante bëñ yi doo nga ko tax a jóg am na fil dentaire fil dentaire ab wëñ la rek wëñ wëñ woo xamante ne nii da koy dugal ci diggante bëñ yi boo ko dugalee ci diggante bëñ yi nettoyé eh, ko ba mu set waaye am na loo xamante ne nii brochette interdentaire lañ koy wax moom comme ni cure di sawee lay sawee waaye cure bi bii ñuy jëfandikoo baaxul noonu laa ko waxee moom li mu wutee cure bi mooy dafa am ay poils yu ndaw a ndaw yu nooy yi ci ne yoo xam ni moom boo ko dugalee ci diggante gémmiñ yi da ngay nettoyer facilement su ma doon digle nag brochette interdentaire bi laay digle ndax fil de soie bi dafa naqari di dugal ci diggante bëñ yi di nettoyer alors que bu dee brochette interdentaire bi moom daanaka ku ci aayul sax boo ko amee di nga mën a nettoyer say diggante bëñ ba mu ba mu set jërëjëf aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu docteur Sare ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jaajëfal ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman yaag docteur Ndiaye ak ñi nga àndal ñëpp di la jaajëfal bu baax di wax ni waxtaan wi am nañ ci lu kawe njot liñ ci doon séentu am nañ ci lu ko kawe ñaan yàlla mu fayal ñu la te bàyyi la ak sam xel mel na ni bokk jëriñu jëriñu nañ ci lu baree baree bare am na mel mbokk moom da doon laaj dafa gis nee na ñennat ñoo xam ne léeg-léeg dañuy dindi seen bëñ poosewaat fa beneen te fekk sax xëy na bëñ bi dara sikku ci woon waaye xëy na man na am ni mu saxe woon moo rafetul wala yooyu ñu dindi ko poosewaat fa beneen ndax loolu itam amul ay jeexital wala yenn yu muy wàññi ci nit. Euh, jërëjëf ci laaj wu am solo woowu mu mel ni lu am solo la laaj ndax ni may faral di waxee rek mooy ne. sunu borom moom doomu aadama bi tuut na ci jotee fa mu àgg fa mu àgg tuut na ci lottu na ci te li nga xamante ne nii sunu borom bind na ko moo tax nit ñi saa suñu leen takkalee poosé sax dan naan leen la bëñ bi mënoon mooy ba ca yàlla defoon moom na la leer ne nag du mën loolu fii te loolu nit ñi dañ koy réere man nit ñëw na ba tàyyi bëñ sàngam dindil ma ko soppil ma ko wala nangam ma ne man moom du ma ko dindi soo demee ci barab sàngam nag ñu dindi la ko waaye man du ma ko dindi ndax nit it boo koy defal bul xool la gën a euh, baax ci sa poos rek waaye dangay xool la gën ca moom te doomu aadama moom mënul am bëñ yu gën bëñ yi koy sunu borom subhaanahu wa laa jox bëñ yooyu nag su feebaree am na ay xeetu traitement yoo xamante ne nii mënees na ko cee def yu bari laataa ñoo àgg ci dindi bi moo tax dindi bëñ mooy li mujj ci fajum bëñ comme ni dindi nekkee li mujj ci cancer rek cirrhose yooyu heure bu nee dagg nañ tànk bi wala nangam leen leneen mooy ne pexe jeex na ci kon bëñ suñ koy dindi dafa war a nekk ne pexe jeex na ci waaye li fekk ñu ngi koy mën a faj dañ ko war a faj te it loolu fajkat yi war nañ cee góorlu ndax nit ñi yenn saa yi ñooy ñëw rek yii sonn naa ci loolu dindil ma waaye man moom am naa ful la woo xam ne moom daanaka dindi bëñ moom bu ma koy def sax sama xol du neex moo tax su ma koy dindi dama koy dindi ci lu ko jar mooy indication bi faaw ñu posé ko lu ko may rek nit ki yaa ngi koy defal lu ko gënal nii nii waaye yaa ngi koy loru ëllëg ndax docteur wax na ko léegi bokk na ci li ñuy nattee kàttanu doomu aadama mooy am ay bëñ am ay bëñ kon ñu xam ne bëñ yi solo si mu am moom kenn mënta dajale lépp lépp lépp. jërëjëf kii nee na dafa seetlu. fu mel ni Daaru Muxti kadam dafay bari lool lool mu doon laaj lan mooy dindi kadam ñu bari boo xoolee waaw loolu de mel na ni bari na fi li ko waralit mooy li ci ëpp sunu ndox yi lay tukkee nga xam ni moo am Kaolack waaye moo am région de jurbel Touba gi ca aju waaye it moo am fii ci Daaru Muxti looloo nag boot naa ni lañ ca war a njëkk a def mooy nguur gi jël ay mesure am fexe doomu aadama yi ñu am ndox mu sell ba pare sa doy la ca topp nag mooy ne ab gà diggante bu gàtt la loolu bu ko waajur yu xamee njott naa ni ko nekk Kaolack sax lu ndox ma naqari naqari naqari bay joxe kadam doom mën naa bañ am kadam mooy fexe ba xale bi bu mu nekkee xale ba ni muy amee bëñ première dentition permanente yi ni muy ñëwee nga xam ne daanaka boo ko nattee ci ay juróom benn at juróom ñetti at su ci jëfandikoo ndox moomu rek du ko wàññi dara même bu nekkee mag bu ko naanee fekk na bëñ yi moom mel na nam war a mel ba noppi loolay waral sax nit juddee ndakaaru ba pare am kanam bi mu jaaxal ñu bari fekk na yoo ba mu vacances ñëw ci dëkk yooyu ca la jëfandikoo ndox moom ba mu nekkee xale mu daal di soppi soppi bëñ yi ndax ni bëñ yi fi mu ne nii da nga ciy gis mag moo xamante ne nii mi ngi di dox sax waaye am na ay bëñ yu ne ci biir yax yoo xamante ne nii yaram bi mu ngi koy defar nga xam ne kon bëñ yi nekkul ne lépp dafa sotteendoo rek suñu borom noppi ko teg ko ne déedéet waaye ay benn bu nekk waxtu bu muy génn benn bu nekk ak na muy na muy defee euh, ak ak ak ak màggam kon buñ bàyyee loolu xel njottu naa ne dana gën a jàppandi dañ koy faj nag Euh, daanaka euh, bu ñëwee ci cabinet dentaire yi euh, heure bu ñu gisee dentiste mën na leen proposé proposer des traitements traitements yi li ci nekk mooy bu ku jug def ko ndax produit yi ñuy weexalee bëñ dafa agressif nga xam ne un professionnel ku jàng wàllum bëñ xam ko moo koy mën a jëfandikoo bu la seetee dina xam ne yow ndax dina la mën a defal produit bi wala leneen la lay proposer ndax gis nañ ñi fi mu ne nii bokk na ci jéey yi gën a bari mooy doomu aadama yi kadam yooyu da leen sonal. lan ci am comme pexe nag mooy dugg ci réseaux sociaux yi gis ñuy jaay ay produit man gis naa koo xam ne eau de javel sax def na ko ci ay gémmiñam ndax bëgg mu weex xam nga lool lor sa bopp mënu koo weesu kon ba tax na luñ ciy jëfandikoo euh, dem ci ko ko mën ko ko xam mu defal la ko dana ci am solo lool jërëjëf. jërëjëf docteur mbokk mi nee na ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi da doon laaj ay bëñ yuy nàcc lan moo koy faral di waral. macha waaw bëñ yi ci moom li koy faral di waral mooy bëñ yi dafa am loo xamante ne nii daf fay toll mooy li ñuy tuddee feebaru siiñ siiñ bi bu feebaree li koy waral mooy dafa am ay taq-taq yu ndaw yoo xamante ne li cëpp day zone yuy taq ci bëñ yi su ci taqee taq ci taq ci nit ki war a raxas gémmiñam raxasu ko war a socc socc ko bu yàggee loolu dafay daal di wow mooy dafay calcifié wu tubaab di ko tuddee tartre nga xam ne ay akit lay doon ay akit yooyu nag bu xasee ba taq ci gémmiñ gi dafay lekk yax wi yax bi nag bu tàmbee lekku rek feebaru siñ tàmbalee ñëw gémmiñ gi di nàcc waaye la cay saafara mooy lan mooy ñëw ci dentiste ndax yooyu moom bu xasee ba takk ba wow machines yi dentiste yor seen cabinet yi rek ñoo ci mën dara mais da ngay socc ba sonn du deñ waaye it laataa boobu su fekkee amaana poosam du ko ko may ak yooyu ndax ku ne xam na ni sunu réew yi bokk nañ bari ne ba ñu ñoo faju ji dañoo amul lu ñu fajoo bicarbonate baax na lool ci xeetu nàcc ci siiñ yooyu noonu heure booy borosu comp tuuti boole ko ci pat bi wala soccu jaxase ko ci am na ci solo lool rawatina ci daara yi nga xam ne mbuuraan yi dafay faral di sonal gone yi lool jërëjëf docteur mbokk mi da doon laaj mu ni li ñuy wax mauvaise haleine ndax ci gémmiñ rek lay bàyyi ko wala am na feneen fu muy bàyyi ko itam su dul ci biir gémmiñ waaw euh, mauvaise haleine mooy xetu gémmiñ gu naqari gu naqari wa moom mel na ni dafay bawoo ci ñetti mbir bu ci jiitu mooy gémmiñ gi saa su amee moom lañuy njëkk a xool su fekkee ne gémmiñ gi nag ci biir li ko fa waral bari na laaj ku ko lekkoon am mauvaise haleine fi mu ne nii soble ku ko jëfandikoo woon am mauvaise haleine mais c'est temporaire bëñ bu bënn ku ko am doo tàggoog xetu gémmiñ bu naqari ndax pax boobu lekk yi dañ fay dugg mu mel ne lu nëb xet boobu lay lay lay lay lay génne signe bu feebar di nàcc ku ko am am mauvaise haleine kon ginnaaw bi ñu dàqee yooyu yëpp ci gémmiñ gi ba noppi xetu gémmiñ gu naqari day bawoo ci mbàq li ndax nit ki bu jëfandikoo bu jugee ci tukkee ci gémmiñ gi rek ci mbàq li la jëm su boobaa bu ko dant bi seetee ba éliminer yooyu yëpp ne ba xool ne ah lii nag génnewul ci euh, gémmiñ gi day yóbbu ci gastoro bi gastoro bi xool biir bi biir bi yenn feebar yi day indi ba ci saa yenn saan yi sax day indi mauvaise haleine bu ci jugee ci biir bi la ca toppaat mooy bakkan bi mooy sphère ORL bi ndax ñoo lëkkalu ko daam fu nu mooy fii ci waxu gi foofu lañ daje noppu bakkan gémmiñ foofu lañ daje mooy oro oro farañse la ko tubaab di wax looloo waral buñ seetee li jóge ci mbàq li day yéegaat jaar ci gémmiñ gi ak bakkan bi lu jóge ci bàkkan bi day wàccaat jaar ci gémmiñ gi moo tax bu xet bu naqari amee rek dañ koy seet ci ñett yooyu euh, li ci ëpp daal foofu lay génnee mën nañu sax foofu képp lay lay lay lay tukkee su fekkee nit ki am na ko nag mu teel cee jóg ndax bokk na ci li nga xamante ni nii day nëxal ak dund. jërëjëf mbokk mi xam naa moom la ñuy mujjee laaj bi da doon laaj. waaw man la waxtu wi mat na incha allah kon ñu ngi lay sant docteur di ñaan suñu borom yàggal la te wéral la te bàyyal la ak sa xam-xam yàgg ñi àndal ñëpp macha allah li ñu doon séntu ci waxtaan wi am nañ ci lu kawe kon li ñu war a gën a góorgóorloo rek ci dégg ko. Euh, ak bàyyi ko xel bu baax a baax ci dénkaane ak digal yi nga xam ne indil nga ñu ko rawatina soccu tey jëfewul te warees na koy man waxtu wu jot ñu ngi sant di gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu